ñun duñu daw du nu Dakar bi bii na sif la mu gaaw coupe la ñu bëgg ngeen indi na ngeen ko rek le mu gaaw bu leen maye dara dara na leen jaral yéen ngeen daw ba xoox fexe leen ñu àndandoo di dem yéen doomu Bambilor jege si leen ñu def ko benn say équipe bu ñu jàpp door mais ci bu leen yuuxu yow dee leen encouragé dirigeant wu BFC ngir yàlla bu ñu découragé gisale faaw ñu gas di suul suñu défense bi gën bi kuul milieu terrain bu vigilant plan yi faaw ñu bëtt koo corner faaw ñu mbëtt koo suñu góol bi ak waane suñu sóor yi duñu gaane duñu maye dara dara ren jii coupe la ñu décidé que le meilleur gagne ci des gox dañu am collectif bu nice chaque année ñu ci RAS match de foot foog nañ ci fës jox nañ ko cër te dañ ko mën sa fana la ñuy jaar te ne la bës romb laak sant te duñu gis bokku ci meilleure équipe zone bi man newe tant nand yoon naf lay sik ba jàpp njaay loo kun ci kepp nga yuxu walloo góor mi wont ba jàpp mbéy yow ku ne ci bett nga tiddi jooy dee ni kañak waaye baam ku ne ci këpp nga li nga am ñu jàpp te gën leen bëgg naam ay góor pare te bëri di yëngal ci biir ñu géré ci biti ñooy occupé terrain bi dàkk leen fere bi fan si verde la allah accu amul bàyyi boo dëkkee bam sa ñëwal zibile àndandoo booloo doon benn fii lu ñu song daat fii fii fii la PFC àndandoo booloo doon benn fii lu ñu song daat fii fii fii la PFC àndandoo booloo doon benn fii lu ñu song daat ñun ñun ñun la PFC àndandoo booloo benn fii lu ñu songu daan ñun ñun ñun la bees jàpp mu métti te duñu bàyyi gone mag ndaw mer ba ci paa yi bees see marketina paa yi jóg leen gaaw ñu gunge gaay nekk ñu sono te duñu taay lépp lu ñu watañu duñu xat fii suñu bëri xajul si kenn équipe bu ajoon di nga aj football bu leer ba ñëpp taax ci supporter yi yuuxu ñëpp di fees gañe dem ñi bexal yëpp feex damu bees te lool lañu tàmm lu ñu war mooy ñu booloo am doole foog ñu tolloo fu la gor jom def si yar tegin am na gaay wan nañ ñu yoon bi buñ ko teggi nañ ko toppi yàgg nañu yëngal zone bi ku bi foog ñu jël ko yëkki àndandoo booloo doon benn fii lu ñu song daat fii fii fii la BFC àndandoo booloo doon benn fii lu ñu song daat fii fii fii la BFC àndandoo booloo doon benn fii lu ñu song daat ñun ñun ñun la BFC àndandoo booloo doon benn fii lu ñu song daat lii terrain la yéen a ko gisal seen bopp seen i morom ngeen fii dajal état terrain bi bari na ci jour yu bëri yoo xamante ne bis nañ fi football xam ngeen ni mu demee gis ngeen équipe bi des fois dañuy avancé des fois bu dee camp yi la gis ngeen leen dañuy avancé ba ci kaw jaaj bi ñu taxaw fi suñu téye ballon bi nañu fexe di jouer ak excentré te di leen passe ay bal yoo xamante ne limite parce que ballon bi soo ko dóoree bu baax rek. gis nga ko mbartal la da ngay ñàkk ballon bi ballon bi da ngay teg ndànk rek. bu ko defee excentré bi mën a génn dem jël ballon bi parce que ballon bi soo ko teg soo ko tegee ndànk mu jaar ci ginnaaw ginnaaw latéral bi excentré bi day ñëw rek for yóbbu te ballon yi li laay war a suul soo leen ko téye excentré yi daggal leen ngeen yóbbu ko jëm si camp yi soo leen amul cadre pour dóor ngeen xool retrait bi def retrait ñu dugal ballon et puis c'est facile bi soo leen jiitoo attaque défenseurs yi bu leen leen bàyyaat chance ñu leen di dàq continuer leen jubal ci camp yi dem leen premier soo attaqué premier poteau sous sous goal bi su fermé angle bi ngén jouer ngén jouer ak ak ak retiré gars yi ñëw ballon te gars yi na naa grand dia li ma bëggoon wax sëñ wax nako mais li ma ci bëgg doli moy nañu fexe di défendre à 4 wax naa leen ko nañu fexe di défendre à 4 défense bi su latéral bi génné nako ko benn milieu défensif wala benn milieu offensif remplacer bu ñuy attaqué nañuy défendre à 4 nous défendre à quatre c'est ci parce que nous nous défendre à quatre gars yi du a infiltrer mënul nekk man xam Nous devons bi ci excentré Il faut ñuy nous Nous latéral yi di après perte de balle si nous ak a di a le milieu défensif aussi na taxaw si axial na def axial taxaw ci kanamu ci kanamu axe central bi parce que dina permettre de défense bi gën a am doole dina tax presque action yu ci bëri mu mën ko retarder pour que ñu mën a defaru en défense pour que bu ñëwee ñu mën leen a marqué. beneen bi ci des en attaque ñi fa nekk ñi fa nekk di fubal match bi bu jeexee ci yéen jeex parce que man xam naa ne militaire yi dinañ leen paase kon suñu leen paasee. sun len passé ballon bi su rebondiré sun len ko passé ci souf bo len demee dem len bu leen jël du ginnaaw yóbbu len rek dem dugul ko parce que fi jarul ay ay ay ay gestu ginaaw di dem parce que gis ngeen état terrain bu ni mel muy ñaari côté yëpp ko xoss ba romba demal nga dugul ballon bi rek mo ci am amu ci lanen ba nopi gaay ñu concentré wu. You're the best. Vida, vida best. Bring it some more down, ñun duñu daw du ñu daay arbitre bii na sif la mu gaaw coupe la ñu bëgg ngeen indi na ngeen ko rek le mu gaaw bu leen maye dara dara na leen jaral yéen ngeen daw ba xoox ka leen ñu àndandoo di dem yéen doomu bambi lool leen ñu def ko benn say équipe bu ñu jàpp door mais ci coach bu leen yuuxu yow dee leen encouragé dirigeant wu BFC ngir yàlla bu ñu découragé gisal faaw ñu gas di suul suñu défense bi gën fi kuul milieu terrain bu vigilant plan yi faaw ñu bëtt ko corner yi faaw ñu mbëpp ko suñu góol bi ak waane suñu joueur yi duñu gaañe duñu maye dara dara ren ji couple la ñu décidé que le meilleur des kot moo koy décidé dañu am collectif bu nice chaque année ñu dégg ci RAS ama ci defuur foog nañ ci fës jox nañ ko te dañ ko mën sa fana la ñuy jaar te ne la bës romb laaj sante duñu gis bokku ci meilleure équipe zone bi man newe tante nand yoon naf lay sik ba jàpp njaay loo kun ci kef nga yuxu walloo góor a mi want ba jàpp mbéy yow ku ne ci bett nga tiddi jooy dee ni kañek waaye baam ku ne ci te bëri jox di yëngal ci biir ñu gérer ci biti ñooy occupé terrain bi dàkk leen fere bi fan si fere gi ñun la faral di ala ci amul baay boo dëkkee bam si ñëwal zibile àndandoo booloo doon benn fii song daat fii la la ñun ñun ñun la bees àndandoo booloo doon benn fii lu ñu songu daan ñun ñun ñun la bees jàpp mu metti ta duñu bàyyi gone mag ndaw mer ba ci bàyyi berse market dina bàyyi ñëw leen gaaw ñu gunge gaay nekk ñu sono ta duñu tàyyi lépp lu wata ñu duñu xat fii suñu bëri xajul si kenn équipe bu fi ajoon di nga aji football bu leer ba ñëpp tax ci supporter yi yuuxu ñëpp feet gañe dem ñibbi xol yëpp feex dama perse lool lañu tàmm lu war mooy ñu booloo am doole foof ñu tolloo fu la góor ñu def si yar teggi na am na solo grand yi wan nañ yoon bi fokk ñu jël ko yekki àndandoo booloo doon benn fii lu ñu song daat fii fii fii la BFC àndandoo booloo doon benn fii lu ñu song daat fii fii fii la BFC àndandoo booloo doon benn fii lu ñu ci moom droit xam ñuy déglu suñ terrain bi sax mën nañ jàpp mooy suñu coach buñ déglu keneen coach yi joxe nañ seen consigne ba pare ñoom ñoo ko dugal mais suñ demee ki ni ñuy déglu mooy calme mooy joxe battement battement machine waxuma si si moral nag laay wax mais battement machine soo bu ne moo koy gis ngeen équipe bi yëpp jeune la keroog ba Sanjaan di dem fubali daa fekk dal seen gis ngeen li fa desoon di ñëwoon seen ay booy ndaw la tey ñoo ñëw nañ fubal ndax booy fubal kii bi Tapha Dola bi ñoom ñu leen ci fekkoon ñun lii daanañu ko am convocation sax pour am nga versé problème la woon kon tey suñ ko amee muy ku nekk da nga jox baa boobu doyen la xaadim mii doyen la dañuy xuloo ba mas mais su waxee ni muy dégg damay wax waaw tey ñoo war a joxe ñoo war a man suñuy noonu lañ lañ bàyyi doon kàddu yi sax jarul parce que ku ne xam na loolu xaaj bi séeréer sàmmal na leen lan lay loo xam fausse da kon lii quatre-vingt-dix minutes la ci nekk loolu laa ñun duñu daw duñu dagar bi gaaw coupe la ñu bëgg ngeen indi na ngeen ko réglé mu gaaw bu leen maye dara dara na leen tere yéen ngeen daw ba xoox xëy leen ñu àndandoo di dem yéen doomu bambiloo jege si leen ñu def ko benn say équipe bu ñu jàpp dóor mais ci coach bu leen yuuxu yow dee leen encouragé dirigeant wu BFC ngir yàlla bu ñu découragé ci sale faaw ñu gax di suur suñu défense bi gën bi cool milieu terrain bu vigilant plan yi faaw ñu bëtt ko corner yi faaw ñu mbëtt ko suñu góol bi ak kawaane suñu zóor yi duñu kaane duñu maye dara dara ren jii coupe la ñu décidé que le meilleur gagne ci si des got moo koy décidé dañu am collectif bu naaj chaque ñu dégg ci RAS match de foot foog nañ ci fës jox nañ ko te dañ ko mën sa fara la ñuy jaar te na la bës doomu laak sant te duñu gis bokku ci meilleure équipe zone bi man na tant nand yoon naf lay sik ba jàpp njaay loo kun ci kepp nga yuxu walloo góor mi wantu ba jàpp mbéy yow ku ne ci bett nga tiddi jooy dee ni kañak waye baam ku ne ci këpp leen bëgg naam I góor pare te di yëngal ci ñu ci bi leen fere bi fan si fere gi la ñu faral ala ci amul baay boo dëkkee bam sa ñëwoon zibile àndandoo booloo doon benn ñu song daat fii na bañ a ñëw. ñoom ñaar foofu parler bàyyi doon. Ada. bu leen ñu fontoo waay sama rak bu leen ñu fontoo ah ku fi génnaat fa lay jaaxab sànni ballon bi dama lay génn si biti jël leen ballon yi man ngeen ko yóbbu ballon bi dem ngeen dugal ko la teel sa bal nga yóbbu bi fixé défenseur bi dem dugal ballon bi am nga point de vitesse bi ballon yi lay génnal yëpp baax fexeel sama premier contrôle bi mu nekk ballon bi nekk si sa kanam nga yóbbu ko dem dugal ko jeex na amul leneen parce que mënoo devancer défenseur à un mètre deux mètres gën gaaw mu lay dab c'est pas normal c'est parce que ce contrôle bi moo baaxul ah ba noppi en défense Bamba reste dans l'axe bul désaxer reste dans l'axe te bal aérien yi jël jóg comme ça ni ngay def rek ballon aérien jóg mais bàyyi di teg sa ñaari loxo heure boo tegee sa ñaari loxo suuf ëmbal rek amul benn temps ba noppi gars yi bu ñu def mukk marquage surveillé ballon bi ballon bi équipe bi yor ko ñuy reculer di ko bàyyi muy jouer Gars yi kenn na simple ñu joué waay. Sini deuxième bola bi dawul waajal tuuti dawul. Señor, avance, avance. Arbit, arbit, arbit. ñu defaru té da nga yakam de sëriñ da nga yàkkamti de il faut nous calmer, il faut nous calmer. Coba ini kan lucu, Pak. Tahu deh. Thank you. Godby! Godby down on us!

ginnaaw bañ sante yàlla julli si yonente bi ñu ngi sant képp koo dëkk Bambilor lay sant la gërëm di wax ni match bi yombul woon ça a waaye géré nañ ko premier match woon du doon luy yomb mais booy moom ay jàmbaar lañ ay gaynde lañ xeex nañ ko ba am ndam li incha allah fas yéene koo yóbbu Bambilor di gërëm képp koo xam ne jàpp na si équipe bi muy dirigeant autorité ñëpp ñëpp population Bambilor bi yëpp ñu leen di gërëm te di wax ni ñëppay ñam zone bi ñëpp dinañ ñam victoire bi dañ koy yóbbu coupe bi allah rabbi nañ ko indi biir Mbam Sow waaw di sàkku seen ñaan di ñaan ñaanu ñëpp gars yi dolli ñaan dolli jàppale bi incha allah booy bu am nañ talent am nañ jàmbaar rek. Alassane kontaan rek bon ndam li moom defe naa ne tey Bambilor gépp ay bëgg parce que BFC comme toujours niñ koy waxee ndey ji seex la équipe la boo xam ne tey yàlla dafa dafa dafa màgg ba ba ëmb wasin jur ay équipe tey ñu ko doon xaar. te fi ñu ko doon xaar macha allah tey fala lañu fa lañu fa lañu fa lañu fa lañu wàcc ndax euh, tey ndam li ko gis xam ne tey macha allah dañ mérité nañ ko parce que équipe bu doy ni BFC équipe boo xam ne xam nañ ko partout ci Sénégal donc euh, tey ah bu ñu premier match match ouverture mu demee nii ah yàlla dogal ñun ñu jiite ko ànd kook aussi suñu ay naataango. Ah, ah, nga xam ne tey ji kii di sama wet di président Mansour Ngom tey mooy suñu vice président mais toujours li ñu doon wax si BFC rek avant muy jur yeneen équipe yi dañu leen toujours BFC ñi ko ànd di ko dox ñëpp ñoo ci bokk yam ñëpp ay président lañ tey ba loolu moo am moo feeñ tey tey boo xoolee ñu mu jur ñëpp tey dañu tey dañuy njëw soutenir équipe BFC xam ne BFC mooy Bambilor donc di wax ne daal Alassane ñun tey dañu kontaan. di kontaan si dirigeant yi di kontaan si supporters yi di kontaan si Bambilor yëpp tey parce que depuis si suba depuis démb sax laa wax ñu ngi koy waajal Bambilor yëpp aussi bon vraiment aussi ne Bambilor yëpp jàpp nañ ci ah mbooloo nag mooy di ñaanal suñu kilifa yi nga xam ne aussi ñoom lañu fa bàyyi nga xam ne tey soutenir nañu biir ak biti waaw mënaguñoo tudd tur nak mais dal ah santial dal, santial, sant yàlla bu baax baax euh, di di di kontaan trop si ndamu bi. Euh, di féliciter surtout les joueurs vraiment def nañ sen taxaway ba mu mat di féliciter encore l'entraîneur di féliciter les dirigeants parce que match bi xawon na metti trop bon y avait des renvois ñu renvoyé ñu plusieurs fois te fekk day fekk ñu programmer pour football prépa préparer mystiquement ak lepp. mais kon tay ni mu démé ni ñu ak génn ci ak ndam dañuy santé Yalla bu baax di gërëm wa Bambilor di gëm kilif kilifa yi nga xamni ñom ñoom ñu ñoo ñu jappalé waaw di jërëm waa dëkk bi yëpp di encourager tamit ak féliciter yeneen ASC yi nga xam ne ñu ngi ci dëkk bi parce que ñoom ñëpp tey ñëw na rëpp ñëw indi seen doole indi seen alal lépp def si ba BFC am ndam en tout cas ñu ngi kontaan di remercier waa dëkk ba. maa ngi nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoom ñooy supporter BFC euh, di commencer di féliciter équipe bi euh, di commencer si dirigeant yi ak joueurs yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon dans le terrain. Euh, di kontaan ci victoire bi parce que c'était pas facile parce que den équipe le bo xamantene do équipe bu ndaw kep ku daje ak mom vraiment boko doré ci terrain bi war nga ko war nga ko fété parce que duñ équipe bu ndaw ñok BFC ñoo yem vraiment kontaan nañu trop parce que aussi tamit premier match dafa metti ñi joueur yi nga xamantene ñom lañu yor ay xalé lañ amna ci ño xamantene sax bu suñu football nawétane mais yalla defal lu ñu dimbal tay bon tactiquement techniquement j'étais présent li leen santoon dans le terrain def nañ ko yalla dimbali nañu am nañu ndam ñu sant ñep di gërëm ñep